ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرجن وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatulah bokk yëpp yi fi teew ñu ngi leen di nuyu ak ñi koy seetaan ak ñu ci def seen pas-pas ci turu sunuy kilifa te njiit la di Serigne Mountakha xalif général de Mouride ak Serigne Sidi Mbacke Cheikh Abdoul Ahad ak Serigne Makhtar Serigne Ahmadou Makhtar mu Cheikh Ahmadou Moustapha mbooloo mi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ci suba ba léegi yéen a ngi fi bàyyi seen yitte ñëw taxawu bis bi bañ a àgg ci war a yeewee kon cant gi ak ngërëm li yéen la ñeel ñu ngi leen di sant ci turu Cheikh Abdoul Ahad mi nga xam moo woote bis bi te wootee ko ci ndigalal Serigne Mountakha ak ay kilifaam yëpp. wooteel ko soxna jaara te loolu war nañu ñun ñëpp ndax lu ñu am rek mi ngi bàyyeekoo ci liggéeyub soxna jaara waaye nag gis naa ni war nañoo takkaat suñuy laxasaay te góorgóorlu gannaaw bu ma nuyoo sëñ Abdou Samad mi ñu pare na bis bi di nuyu suñu rakk ju baax ji suñu sëriñ bi soxna Baali rek mbiram feeñati na fii yabal na fi délégation bu mag taxaw bis bi ba mu yegg fii taxaw it sëñ Abdou ci lu ma xam loo xam ne sax sëñ Abdou xam ko te sama jëmm tax kon bu fi yebalee délégation soxna Ndeye Mbacke jiite ko moom sëñ Maam Mor mu sëñ Massamba ànd ak soxna Ayda Jongo soxna bismillah Mamour soxna soxna Ayda soxna soxna soxna soxna Sukayna Jong ak ñi ma àndal tamit min seen kanam ndax gisoon naa leen <clears throat> ñu ñëw ci màggalu Grand Bassam bi jëmm yoo xam ne fu soxna si teewut bu ñu fa teewee soxna si teew na fa te soxna si li ko war dafa bari ci maam jaara ndax mooy jëwri ni maam jaara ni sëñ Muntaxa nekke jëwri ni yoonu murit kon maa ngi feddali sama kóllëre ci yéen ci suba ba léegi yéen a ngi fi fi ngeen toog kenn jógu fi ñu bari sax jóg nañ waaye yéen da ngeen a dem ba mu jeex tàkk kon mënuma leen a ñàkk yot sama ngërëm ngeen tegal ma ko ci loxol soxna si sëñ Abdou Samad it gis naa taxawaayam moom boppam la taxaw doomam la taxaw ab taalibeem la taxaw kàddu yum ci yëkkati yëpp mook soxna gis naa ko di sant it Cheikh Abbas bu sëriñ Abdoul Xaadir gis naa ci taxawaayam bu baax man foofu rek laa nekk taalibe laa ñëwuma fi ngir ni Seex Abdu sama doom la déedéet damaa gis mu tegu ci yoon wa di woote loo xam ne ne <clears throat> gis naa liñ ko ci jox gis naa fa mu ko jëmee kon kooku bu wootee sama dib taalibe war naa ko wuyu si sama waxe daaw mooy sama waxe ren rek waxe Seex Ibra ji rek laay fàttali <clears throat> sëñ Tuubaa daal ku la ci jiitu jiitu na la ku la ci raw du too ko jot da daan wax ne sëñ Tuubaa de koo fa yónni boo fa yónnee sa doom <clears throat> bu ñëwee di sa baay loolu ñëpp xam nañ ko boo fa yónnee sarak bu ñëwee sa mag lay doon du dëgg boo fa yónnee sa doom bu ñëwee di sa bàyyi rek comme nañ ko daan waxee kon sëñ bi moom kenn ku ne dalaa waral jóg nga bàyyi sa yitte buñ ko wootee wala ñu woote ci maam jaara nga jóg sol su bu mu set xëy par parfum bu neex def xaalis ci sa poos lu ñu nga joxe ko ba muy dem ngir loolu kat moom moo ñuy may li ñu am murit moom joxe rek moo ko war kon fu mu toll di am ñoo ngi ñaan ngeen di am te yàlla di ñu xiir ñu di ko defal ci sëñ bi soxna jaara nag jigéen ñi jàmbaar lañ lool danaa ko wax bala maa dem fépp fu ñu woote ñoo fay jiitu ñoo fay man ñoo fay gën a joxe seen alal loolu nag sëñ Fallou moo ma ko njëkk a wax ndax taxaw na fii ci buntu këram seen jigéen ñi pool yi ñu daan awante bu ñuy kuule jumaa ji mu ne ah, jigéen ñi de gis naa leen ci sama jumaa ji waaye bu jumaa ji yeggee de lu góor ñi amati jox leen ko kon nag lu góor ñi amat nañ ko jox jigéen ñi ndax jigéen ñi lu ñu am jox ko sëñ Tuubaa wasalaam ngeen si biir réew mi wala da ngeen ngeen mën a jot moo